تعليمي من واوا من بعده تاء دالي وفائي وعيني كل أزمناتنا به كجيمي بلا من بعده باء فداد aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi auditeurs seen rajo Benno FM ci fréquence 106 point 0 kaddu gi bàyyi ko fii ci rond point bi dend ak mairie bu Touba xàll wi dëgmal jëm ci garage bu bees bi ni ñu ko baaxoo daan def rek seen émission indigré yi dimanche bu jot 15 heures ñu jéglu mbokk yi ci minute yi jotale ci jataay bi li waral jataay bi it mooy waxtu nekk rek. ngir waxtaanee immigration muy tukki mi nga xamante ni bii dañ koy def te jaaruñu ko ci anam bi jaadu ñuy seet lan moo ñu ci waxtaan nag indi ci ay solution tey nag ñu am ci gan suñu invité di soxna Oureye Ndiaye moom la ñu jàkkaar lool ci studio bi xam naa dama koy soo ma ko bàyyi rek mu nuyoo soxna Oureye Ndiaye ñu bàyyi rek nga nuyoo auditeur Benno FM.
asalaamaaleykum auditeur ak auditrices yi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen nuyu di leen ziare di leen ziare bu baax a baax di leen wax ngeen teewlu nag bu baax émission bi buñ fi seenee jagleel immigration yi xale yi dem ci gaal gi ñu bëgg ngeen teewlu ko bu baax a baax.
jërëjëf. soxna Oureye Ndiaye moo nekk sunu invité nuyoo na xam naa incha allahu rabbul alamin dañ koy dañuy déglu sketch bi nga xam ne benn théâtre la boo xam ne mi ngi wax ci wàll woowu bu ko defee bu ñu ko dégloo pare rek incha allah ci loolu la ñuy tàbbi waxtaan ci kon ànd teewlu li nga xamante ni bi rek moo dekk kii bi ñu bokk
théâtre bi ki leen ko baaxee di kuréel gii di OIM organisation internationale pour l'émigration di kuréel gu ëmb lépp lu jëm ci migration mu bokk ci projet bi ñu dippee migrant comme messager maanaam way tukki wi nga bu kàddu li ko tax a jóg di yeete jëm ci lépp lu tukki mu jaaru yoon mën a jur ñi leen dégtal bi le théâtre di collectif artiste comédien fekk baax ci Kolda.
waaw Modou. Matar ça va. ñu naan la gis. ah maa ngi fi. yaa ngi fi ah maa ngi fi alhamdulilah. waaw jox ma li nga ma tàmbali jox. yii Matar loolu amul de. ah la moo fi am. waaw xaaral ma jox la cocktail. waaw cocktail. oui kon amul problème jox ma ko. ok oui. non Modou yéen seen fii doxatul la ah. xamoo dara sax Matar. te yoo xam nga ni hôtel bi moo nekk hôtel bi gën a mag ci gox bi ñu nekk. waaye gën a nit daan liggéey sax. bàyyi nañu. parce que dëkk dafa métti. te daa fay fayatul. dëgg la rek maa am ngor ma ne daa ma koy liggéey parce que amu xalaat jàpp moo tax. mais fu ma amee fu ma jàpp rek. damay dem baal ma baal ma jox ko. waaw allo.
allo.
kookal la.
man la Xaadim Silla.
Xaadim Silla man.
Xaadim Silla mel na.
Xaadim Silla Espagne.
waaw.
yee yee yee Xaadim ana waa Espagne.
waaye Espagne gi fii di neex.
mais naka seet bi. mu dee Sénégal mu ngi tàng jër naqari.
ah mooy yow loolu bu nakaree ci yow la neex la booy.
Maadu.
ah yow nee naa la ñëwal fii.
Espagne fii da ngay yëg am liggéey.
ah.
loolu laa la waatal kon boo fi ñëwee di am liggéey.
Xaadim.
waaw.
xaaral maa ngi ñëw.
ah booy ma ngi lay xaar.
dinaa def sama kéem taan katak ñëw Espagne incha allah.
booy tàngee foofu yow la bu nakaree yow la mais l'essentiel man li ma tax moom mooy nga ñëw.
Xaadim xaaral maa ngi ñëw.
yor sa diplôme yi bàyyi lépp ci ginnaaw nga ñëw da ngay ñëw rek yegg liggéey. incha allah.
dinaa ñëw. Matar. yàlla ñëw na. xam nga ki ma doon woo nii kan la. kooku la xam benn xarit mu tudd Xaadim. Xaadim ñoo bokkoon classe. xamul dara. lay wax ni. mu dem Espagne. gis nga dëkk bi. waaw tabax na fi ay taax yu mag a mag a mag ci dëkk bi. bàyyi li nga te loolu Espagne la ko amee. mu ne ma. may ñëw Espagne. mooy tekki xam nga lu baax. yii loolu kay ma ne ko woo nga naan ci buuxum soow. maa la ko wax. ci mu nekk nii. waaw sama lépp laay jaay.
ah mbaa moto bi du fa la bokk xanaa di ko wax lépp laa wax lépp moto bi moom tippoon naa ko waaye Modou ah mbaa yaa ngi seetaan télé yi ak yaa ngi déglu information yi li ñuy wax si ñi di dem Espagne ma ne Matar toog nga da ngay dee dem nga dee bàyyi ma dem ma guddi ji ma dee moom nga leen toog fii nii léegi sax ñu ànd ma delloo caabi borom baa bi léegi baa bi dama ko tëj ma dem Espagne man de pare naa man maa ngi nii sax si yoon bi dem ata asalaamaaleykum maaleykum salaam papa yaay naam na ngeen def waay jàmm rek kay alhamdulilah waay wallaay papa naam yaay wàcc naa nag dama leen tabu dama bëgg dem Espagne fan Espagne il faut ma dem papa Espagne waaw waaw papa il faut ma dem il faut ma dem de ah ni ñu sonnee nii il faut ma génne ko il faut ma dem Espagne Modou waaw yàgg naa laa wax nag weddi gis nag bokku ci papa dëgg la mais bàyyi ma dem rek bàyyi ma dem rek bay ko mu dem waaw yaay.
dombu góor la wallaahi dombu góor coono la xam wallaahi yaay boy bay ko mu dem wallaahi yaay boy ah kon nag comme nangu nga ah man de mënuma ci dara Kay.
comme sa yaay del moo la nga dem Hmm.
incha allah di nga dem jërëjëf papa jërëjëf léegi nag lu may def Hmm.
dama dem sama gétt gi léegi waaw def fa benn nag ma jaay ko yokk ko ci li nga yor jërëjëf papa jërëjëf kontaan naa man mii sa yaay Hmm.
am naa juróom-ñetti fukki junne sama natt bu ma jël naa la ci may jërëjëf yaay boy kontaan naa papa yaay naam kontaan naa ngeen ñaan rek dégg nga incha allah ani suma soxna bi moom daal mu ngi woon ci biir ñu ngi ci biir mu ngi ci biir ah Waaw.
xaaral ma fekk ko ci biir ma boo xam moom incha allah waaw papa naam bëgguma benn nag dégg nga ba fajar rek na ngeen ma yee dégg nga incha allah yow kay bàyyi ko sama loxo waaw ñii ñoom dañoo yoogul ba léegi Yacine Yacine ah yaa ngi ci wérdi bi pare naa pare naa ah waa kay waaw ana Modou moom xanaa yoogul ba léegi gisaguma ko mu génn de ah kon xaaral ma woo Modou naa papa yeewu naa yeewu naa maa ñëw ah ba pare nga waaw pare naa pare naa waaw waa kay
Aïda maa ngi ci yoon bi dégg nga waaw da ngay dem Ndiaye na nga góorgóorlu bu baax nga toppatoo xale yi dégg nga waaw Ndiaye boo demee bu ñu fàtte de bu ma leen fàtte Aïda nga xam nag bu la yóbbu incha allah maa fàtte wu ci dara non non fàtte ma dara bëgg naa lépp Yacine Yacine naam nijaay waaye kay ñu gunge Modou ba ci garage bi eh, ñu ñaanal ko waaw nañu dem nijaay waaw Modou non papa mbaa pare nga sa bagage Waaw, yi pare naa, pare naa, waaw.
waaw nañ jëm Modou yaa ngi nii di dem nga xam ne nag na nga xam lu la yóbbu bàyyi nga sa soxna fii nga bàyyi say doom fii na nga xam ne nag ah ñu fàtte de yoonu jàmm incha allah waaw waaw waaw noppi noppi loolu jéem a baaxul ci moom jéem a baaxul ci moom noppi noppi dina baax incha allah.
alhamdulilah rabbil alamin comme que yegsi nañ ci jàmm eh wàcc leen wàcc leen yëgal leen wàcc yéen lan ngeen di def ci kaw wàcc leen waay eh kan moom moom sag bi man maa ko moom mag booy kaay jël sa sag bi yow tamit kan lay nelaw foofu booy gis ngeen ñële waaw gis naa waaw foofu ngeen di traversé boo leen yëgee foofu ngeen di fay ñu mun leen jàllale fii mooy Agadez nag
Zam quoi moi man ouais viens ici waaw je suis arrivé maa ngi nii tu vas aller où moi boo dem fële Espagne tu as 300 000 francs avec toi juróom benn fukki junni waaw maa ngi moom il ne reste qu'une seule place prends tes bagages allons waaw kon ko ñu dem ñu dem salaamaaleykum waaleykum salaam man Modou laa tudd yow nag man Babacar laa tudd man Anta laa tudd man Ibrahima ah ñun de léegi nekk na ay mbokk sagam ñoo bokk oto bi pour dem Espagne man nag sama benn xarit ñu naan xaadim moo nekk Espagne moo ma wóolu waaw man ci baar laa laa doon liggéey baar bi nag léegi dafa doxatul daal mu ne ma su ma ñëwee Espagne rek dina am liggéey bu moo tax ma ne bàyyi ma dem xooli est naa am liggéey eh suma waa ji yow daal am nga jàmm gannaaw dem nga ba am fi ngay dal ah man daal dama gis eh, nu ñuy dundee fële ma ne man tamit foog ma dem parce que suma morom yi ma yoroon yëpp ñoom ñoom ñu ngi biir Espagne waxtu bu leen neex la ñuy ñëw Sénégal waxtu bu leen neex la ñuy dellu man tamit nag ma ne kon foog ma def loolu ngir jàppale suma yaay rek.
man daal mu leen waxee lan moo tax ba may dem dooleel ma sax gëm man sama yaay léegi doomu jigéen rek la am mosul am doom bu góor sama wujje yaay moo am ay doom yu góor ñooñu yëpp ñu ngi Espagne léegi ñoom ñu ngi defal seen yaay lool ak laal ñoom faalewuñu duñu duñu añ duñu ndekki duñu reer duñu def dara ma sonn looloo tax nga noppi nga noppi nga noppi nga noppi lépp dina jeex lépp dina jeex
tëtëtëtëtëtët yéen kii moom lu muy daw gis leen nu muy dawee mu ngi xët yoon bi mel ni kuy dem àllaaxira laa ilaaha illallah
waay damaa xiif damaa mar may leen ma naan man tamit lu la nekkal maa la gën a xiif yàlla xam ne maa la gën a xiif maa la gën a mar muñ leen problème bi léegi ma lijjanti ko Waay.
léegi ma lijjanti ko ak ñoom eh gardien eh eh dañoo xiif mangé eh gardien eh Ah mais dis donc Vous vous croyez où c'est vous Et allez fermez vos gueules waaw yow loo ñuy nar nii ñun am nañ droit dañoo fay kon bu ñu xiifee am nañ droit ne la dañoo xiif bu ñu maree tamit war nañ la ko mën a wax dañoo xiif mangé
Et allez casse-toi ou sinon je te zette Allez jetez-le moi Wayaay bàyyi leen ma bàyyi leen ma wayaayooy wayaayooy wayaayooy eh ñu ñu ngi nii di xoole ba ñu sànni Babacar moo noppil noppil noppil xanaa gisoo seen fétal yi bu ñu wax fi ba ñu wàccee ñu wala ñu rey ñu
hé hé hé fii ngeen ma nar a bàyyi xaar leen ma xaar leen ma bu leen ma bàyyi fii xaar leen ma
Ah, ah, ah, ah. Qui ose encore réclamer de la nourriture Qui Allez putain de merde
wuy sama ndey ndekete ñu ngi ci ay loxo bandi la ñu dal
Allez il faut encore crier Donnez l'argent Amenez dinero Donnez, donnez l'argent Vous me payez
ey man Modou lii yëpp maa ko teg sama bopp sama papa waxoon na ma ko weddi gis bokk ci sama xar yi ma àndaloon yëpp ci oto bi dañ dañ la sànni ci yoon bi léegi man rek maa ci des
eh ñii dem nañu bàyyi ñu fii ñun kese léegi lan la ñuy def nu ñuy def yow kay xam nga ne duñ fi toog ak ngelaw bu bare bi ànd ak poussière bu dul jeex amuñu pexe lu dul topp tànk oto bi ba dab leen moom rek la ñuy def Tieu, amuñu nu ñuy def sonn nañu guddi na liw bi bëri na foofu moom amul beneen pexe lu dul dul toog rek daal di noppaliku bu dul loolu daal du ñu am jàmm
saawaay ñoo ngi àndal fii benn xale bu jigéen seddaay baa ngi may rey lii duma ko muñ léegi yow loo nar dama koy yëgg ci moom déedéet duma la ko bàyyi nag parce que suñ diine santaane wu ko te- te ñun duñu ay mala kon duma la bàyyi dama yëgg ci moom non non non duma la bàyyi nga yegg ci moom dama yëgg ci moom déedéet ma xool loo ci mën non loolu du ñu mën a am bañ tey.
bañ bañ ah ay ay rey na ma woy sama ndey waaye yéen li ngeen di xeex nii ngir liw rek tuuti mu di ngeen xam ne nag coono jeex na xalaat séentu leen fële lii tàkk fee fan fan mais fee oto la oto buy ñëw la waaw waaw léegi kay coono jeex na waaw gis naa ko coono jeex na bu ñëwee rek nga xam ne moom ja am na jàmm
Allez, bande de fainéants Debout Allez faire vos besoins, et le plus vite, hein
Hé xanaa déggu leen li mu wax ku bëgg a tuuri ndox la wàcc dem tuuri ndox
Allô Allô, oui Vous les avez retrouvés Oui, ils sont quatre. Nous passerons récupérer les sous. Bande de canailles On va vous sauver, vous allez devoir payer avec vos corps
eh lu ngeen di def nii eh lu ngeen di def nii bàyyi leen ma bàyyi leen ma da ngeen yëg sama kaw muy sama ne bàyyi leen ma wuyaay yooy wuyaay yooy wuyaay yooy
Terminus Tout le monde descend ay waay yegg nañu yegg nañu xoolal la ay waay alhamdulilah
waay dëkk bi rafet waay lii moo ñu tax a ñëw waay Eh toi Réveille les vieux
nijaay nijaay nijaay way paa bi dee na way paa bi dee na xamoon naa ni dana dee coono bi sonal na ko ci Voilà, il est mort, il est mort. Pourquoi un homme de cet âge a-t-il pris le risque de braver le désert pour se rendre en Europe C'est vraiment honteux.
yéen a ngi gis ndekete yoo naar nii la mel paa bi dee na sànni nañ ko dem nañ jaay Anta ak Ibrahima yéen a ngi gis oto benn fii bàyyi yéen a ngi gis
Alors Police Police Sortez vos papiers Papers Papers Police Et alors
man man man man monsieur man man am naa passeport am am am regarde regarde
Passport, pas bon. Pas bon. Pas visa. You haven't visa. You haven't visa. Passport, pas bon. Pas bon.
mu yéen kii wér na mu ne man sama kayit yi baaxul ma wax ay waxi visa su ma amoon visa du avion laa doon jël kii wérul de
Yalla, yalla, yalla. Allez, allez. Entrez. Entrez. Et tous, on va amener là-bas, là-bas, là-bas. Centre de détention. Là-bas, là-bas. Prison, prison.
la ilaha illallah kii fi lañ ma indi fii mooy ñoom seen commissariat xoolal ñu lu ñu bëre xoolal fii mm, fii muy xasaw xunu sax xoolal ñii ak seen ñaq yi xoolal ñu ñuy jeexee ñii de duñ lekk woyoo man moom jeexal naa man gaare naa fii kay kon ko ànd nañu si jigéen ñi fu ñu nekk ñu ne ma suma waajur suñu fayee ma génn kon tey bàyyi rek ma jàpp ci yàlla
eh yow loolu lañ la wax man sénégalaise laa ni yow def naa fi fukki at fay naa fay naa ba sonn mus mënuñu maa bàyyi bu dee loolu lañ la wax dañ lay nax ah kon de yàpp naa la ilaha illallah xoolal fi ma nekk nii tey maa ngi nii si gasum wurus li ma bañoon def Sénégal maa ngi nii di ko liggéey poussière baa ngi nii fees del sama dënn xaw ma beneen matériel bu may liggéey lu dul benn pig buñ ma jox cey cey yàlla
Wallahi, il va parler paper. Ah, vous mourrez ici. Wallahi, il va parler paper. Vous allez mourir ici. Kill you. Non. Il va parler paper. Vous mourir.
yaay booy naam ana sama mag ji Moodu ay sama caat bu jigéen bi Modou dem na Espagne léegi mu ñëw te buy ñëw day indaale xaalis bu bare mu dog suñu buumu gàcce yi
ci yàlla man moo di tey la ñu dugal prison rayuma nit fenuma sàccuma bëgg dem Espagne rek pour tekki loolu moo ko waraloon waaye nag bu ma xamoon ma déglu suma papa li ma waxoon ma def Sénégal liggéey fa mu jaay nagam yi sama yaay jox ma tontinam bi tey fii laa mujjee cey àdduna allahu akbar
émission bi ngeen doon dégg ñi ngi ko doon amal ci lëkkaloo bi dox ci diggante URAC di kuréel gi ëmb rajo communautaire yi fii ci Sénégal ak kuréel buy saytu lépp lu jëm ci immigration jaaree ko ci campagne bi xeex tukki bu jaarul yoon ñu dippee ko migrant comme messager maanaam way tukki wi ŋàbb kàddu
Eh, jërëjëf yaakaar naa soxna Oroy ñoo déggandoo skat bi yaakaar naa dégg nañu théâtre bi eh, ni nga xam ne ni lañ koo déggee mën nañ cee jël ay points yu bare bare yoo xam ne ñi nga xam ne ñi ngi jóg dëgmal jëm ci gaal yi eh, lii rek mën na leen a jox taktal bu leen won ne gaal gi ab risque bu rëy la tomb bi ci njëkk mooy ki nga xam ne eh, Modou mi nga xam ne xaarim daf ko woo wax ko na ko boo ñëwee ci réew mi da nga am liggéey ndax Modou moom mi nga amoon liggéey Sénégal di liggéey Modou daa waroon a des ci liggéeyam bàyyi xaari ma nekk Espagne ci liggéeyam wala ndax Modou moom daa war a dem Espagne loolu it eh, dañ la bàyyi nga ba xam yow ban ban eh, jàngat nga ci indi
waa Modou moom dafa waroon a des Sénégal nekk ci liggéeyam mais xaadim influencé na ko ne ko Espagne lépp mi ngi fi loolu moo waral tax mu tëj place bu mu doon liggéeyee dem Espagne te xamul ni dem bi risque la parce que papam bi mu ko waxee dana ko damay dem yaay ji ne ko kon da ngay dem ndax nga am alal dégg nga te fekk bu xamoon ne conséquences yi la ciy daj du dem mais xamu ko ndaxte ka woo ne ko fii lépp jàmm am na xaalis am na lii am na laa mais njëriñ dañ ne loo fekke ndax gaal gi ñuy dem nii amul benn sens parce que même boo demul dégg nga yaa ngi gis réseaux sociaux yi yaa ngi gis télé yeeg image yeeg vidéo yeeg lépp mais Moodu moom jàpp naa ne bu xamoon ne lee la fay fekki du dem
jërëjëf soxna Oray ba tey gis nañu ne it Modou même wurteem ci xaarim boo ko rek ne ko Espagne boo dikkee da nga am liggéey moom mu yoroon place di liggéey di jaay liggéey liggéey la ndax moom daa war a am gis-gisu ne xaarim yàllaa ko yóbbu mu tukki moom mu ne ci réew ma waaye muur yi daa war a gis-gis am gis-gisu ne moom yàllaa ko natt moom mu nekk ci réew mi di jaay ci réew mi comme xa ndax xam na ba xam xaadim lan la daj bu dee daa jaar ci yoonu suuf yi ba dem ci géej ba dem ba dem ba dem Espagne lan la daj ndax xaadim mburu ko woon a nett li mu daj laataa mu di ko wax boo ñëwee ci réew mi am liggéey.
non xaadi moom du ko wax li mu daj ndax sénégalais la xam nga sénégalais lu mu daj moom bu méttee ba dem ba neex day fàtte lu métti li su nekkoon moodukat yoon bi lii ak lii moo ci am ba tey ma am lii xëy na moodu dina am benn dut bi baa mu ragal mais daf koo wax li neex te moodu xalaatul ni liggéeyam boobu mu nekk mën naa dem ba romb Espagne bu xalaatoon loolu yaakaar naa du jël ne day dem dajale lim am ak yi fameem dajale lañ am muy dem di paas di dem loolu boo ko gisee mooy ñàkk gëm sa bopp ndax la mu nekk bu ca gëmoon boppam kee bu ko woowoon na ko fii ay milliards la ñuy fay par mois tamit war naa xam ni la fa yóbbu xaadim xamut ci kaw la jaar xamut ci suuf la jaar bu bu defee noonu mën naa dem ba fekk fa xaadim ba raw ko wala xaadim mi ko fa bàyyi dem li mu am fii bu ci gëmoon boppam di liggéey liggéeyam mën na cee am ba réussir ci ba xaadim bu ñëwee du ko ñii
waaye xam nga boo déggee xam nga xaarim daf ko wax loo xam ne gëlëm loo na ko ndax fàttaloo na ko li mu nekk ñëwal Espagne boo ñëwee da nga am liggéey waaye yëmul ci loolu moom li mu conseil ay waajuram est-ce que du it waajuru jigéen yi moom ndax waajuru góor yi gàntal na ko waaye bi mu ko gàntalee mu ne ko damay dem da ko mujj di demal waaye est-ce que du li mu wax waajuru góor wi ne ko moom kat am na ay étages bi mu demee Espagne am na ay étages est-ce que du waajur yi ñoom it dañoo jël seen i bët teg ko ci alal ba tax lu ñu leen wax ci doomu alal rek maanaam gisatuñu la ñu daj ba am alal ji maanaam la ñuy gis rek mooy alal ji loolu it est-ce que waajur yi amuñu ci part.
waa part de responsabilité bi tey waajur bi am na ko ci parce que bi mu ñëwee tàggoo paa bi da koo tere. mais bi mu nee ko xaarim am na étage am na lii yaay ji ne ko da ngay dem. paa bi dafa mujj ànd ak moom ci dem bi kon tere bi méttiwul. parce que nee na ko dinaa jën jël sama benn nag jaay ko jox la kon tere boobu méttiwul xëy na ñoom étage boobu ñuy ñu xool ba séntu ko dañoo waroon a xam est-ce que xaar kii mii dina mën a réussir ci yoon bi ba war a am étage boobu ak wërsëg ba xaadim am ba am étage est-ce que Moodu am na wërsëg boobu xooluñu loolu mais waajur yi war nañoo xool tamit ni nit yàlla mooy maye lim la may fi mu la yemale foofu boo fa yemee yàlla mën a la jox lu raw loolu mais nag boo xeebee sa wërsëg di xool li xaarim am wala li keneen am yaakaar naa ci nii rek ngay mujj
waaye wax nga léegi lu am solo loo xam ne boo dégloo théâtre bi dégg nga mu wax ko danaa jaay sama nag ci gétt gi ndax baay bi dem ba yare ab géttum nag ndax wërtoon a fexe na doom ji mën a sàmmee gétt gi waaye muy jàpp ci gétt gi di jaay ngir doomam dem ndax loolu bokk na ci li sakkanal gétt gi benn kii dem ndax xam na ba xam dana dem wala du dem ndax rëccu dina am waaye fi rëccu gi waroon a am daa mel ne fa mu amee daa gënewut rëccu gaa ngi waroon a amee ci bi mu tàggoo baayam baayam tere ko moom mi nga xaye moo tàggoo mu rëccu ne xaw moo ne su ma tàggoo dañ ma tere waaye nag bi ñu ko teree tegal nañ ko nag wi ñu waroon a jaay baayam ma jàppoon ne newoon ko nag wii kat dama koy jaay yaayam dégg naa mu wax ko ne ko xam ma su ma teggee sama natt sàngam su ma teggee sama nangam léegi su boobaa kon bàyyi baa ngi tàmbali miraas boppam te dema gut yaay jaa ngi tàmbali miraas boppam te dema gut waaye ndax dana dem te boo xoolee li li jaar ci suuf ñu ne dañoo dem ci géej gi boo génnee téeméer boo génnee juróom-ñett fukk yi wala juróom-ñeent fukk yi dañoo des daanaka téeméer boo génnee la ci ëpp dañoo des ci ndox mi demuñu boo déggee yuuxu yi ak ñi nga xaar dañuy dem dañuy xiif di yooxu loolu it ndax yëlluwut ci waajur wi tey su fekkee doomam a ngi liggéey ba ñëw xëy xëy xëy ne ko tàgg ko ne ko damaa bëgg dem du woon am beneen xalaat bu bokkut ak maanaam di ko bàyyi du woon am beneen xalaat bu bokkut ak di tegg ay natam ndax moom ma jàpp ne bu doom ji ñëwoon tey ne ko damaa bëgg a tukki donte ne tudd ko am xaarim tudd ko kenn ki Espagne waaye ci yoon wi may jaar mooy yoon wi nga xamante ne bi yoon wu yoon wu jaariwut bi la xañ na sax ñi ñu bari lu ñu wax ne seen waajur ci may dem ci gaal gi ñenn ñi duñ tàggu seen i kilifa ñenn ñi seen i xarit la ñuy tàggu mais am na ci ñoo xamante ni sax dañuy dem ba sori doo ko woote ne maa ngi béréb sàngam damay tukki loolu it boo xoolee euh, li nga xam ne ñu ngi koy daj ci yoon wi dégg nga li mu wax boo gisee oto bi mu duggoon dégg nga borom oto bi di bi mu génnee di laajte ku moom saag bi waaye li mu ci gën a yéem mooy bi ñu ko tëjee bi ñu ko tëjee di ko fay ko loo xaalis ndax yow réew moo xam ne xamoo fa amoo fa mbokk déggoo làkk wa xamoo fa kenn nga xëy xëy xëy wàcc fa ndax loolu it yëlluwut askan wi ñoom it ñu defaat taxaw seetlu nit ki it jël ab saagam di bootu saagam di dem bala mu jóg mu xam ci ban anam lay tukkee loolu jëlutoon ah waa loolu yelloo na mais déggoo lu mu wax nee na am rek la gis wala dee ki nga xam ne dafay jug ne day dem di yemale dee dee moom boo ko yemaleeg dara rek daanaka la nga jëm di nga ci jéem a dem mais boo réussiree xooloo ko boo réussir xooloo ko ndaxte ñiy dem ñi ñi majeure partie bi ñu ci bëri duñ tàggu seen waajur yi dañuy dem ba comme lu mel ne lii bi ñu jàpp la fa di la chantage di woo sa waajur di la laaj xaalis ñu bëri ci loolu la ñuy xamee ne dem nañ ndaxte sa waajur boo ko tàggoo mu xool ni jamono bi fi mu toll instant bi ci immigration yi xale yi ñi ngi dee ci ndox mi kooku bu fekkee nit nga dara wala nga bëgg nga sa njaboot di nga leen tere mais yëg gi ndax dinañ ko yëg ba pare ndax Moodu mi moom yëglu na ñooñu xëy na alal moo leen ci dugal ndax jàpp nañu Moodu dina indi lu bari dégg nga bi doom ji jooyee jaba ji ne na ko sa papa mi ngi ñëw bu ñëwee dina indi xaalis bu bari parce que xam na loolu muy daj xamu ko tey busewul maître
waa kon xam nga léegi soxna si it moom nga- kon gis-gisam gënul foofu feeñul foofu parce que bu fekkonte ne gis-gisam feeñ na foofu moom mën naa def effort boo xam ne borom këram dem ci gaal gi donte ne ndeyam ànd na ci bàyyam ànd na ci mën naa def effort surtout maa nga dem ko doon koo xamante ne bi yaa ngi bàyyi xale Euh, ni xale bi yuuxoo bu nu yaay ji yuuxoon xañ na mën naa am solution dana am mën naa am solution dana am ci baay bi yebatal doomam mën naa am solution dana am ci yaay ji yebatal bo- doomam waaye boo xoolee dafa mel ne parents yi bari na lu xew ci ci ci tukki bi eh, tukki bi nga xam ne ñu ngi koy def ci ci gaal yi lu ci ëpp waaye juri ci lañ bokk te nga- ndax nga xalaatoon nag ki dem ba mën a sarse ab bitig baayam mën a dem ba mën a jaay aw nag yaayam mën a dem ba tegg ay nag ba tegg ay nat ndax xalaatoo ne ki nga xam ne rek tey daa yoroon ak mu- ak ak dafa yoroon euh, da doon def bitig mbagg di gàddu di jaay di wëreelu kooku xalaatoo ne maanaam bu ñu ko wowoon tey ne ko Espagne boo ñëwoon da nga am liggéey ndax moom warut doyloo ne man kat yow mi ne Espagne di ma woo yàllaa la woo Espagne man mi sama bitig mbagg yi nekk fii ci Touba di wëreelu di jaay yàllaa ma ne naa wër ci Touba di jaay lépp loo fi am yàlla nay sa wërsëg ma it fii lépp loo fi am nay sa wërsëg ndax yëlawutoon kon eh, nit ñi it ñu bàyyi xel ci ñi leen di woo parce que it boo xoolee lu ëpp ci ñi jaar ci gaal yi dafa mel ne ñi jaar ci gaal yi ba yegg la wala ñi nga xamante ne bii dañoo jaar ci avion yi xañ na ñi jaar ci avion yi sax amuñ gotug ñaare di expliquer nit ki naan ko réew mi boo dikkee dana mel nangam dana mel nangam parce que ñu ci ëpp ñu jaar ci avion bu ñu demee dañuy rëccu donte nekk jaar ci gaal dina rëccu mais nag am na ñu jaar ci avion ñoo xaay dañuy dem ba yegg fay départ kon nga xalaat ne kon ki bëgg a tukki tukki mënta ñàkk yëlluwutoon kon moom mu jéem a xool nan wan yoon lay jaar woo xam ne du bokk ak yoon wa- yoon wi nga xam ne du yoon bi jaadu ci tukki mu yoon suuf bi ndax ut doon xool beneen yoon bu bokkut ak boobu yoon.
ah waa waaye yoonu suuf bi dafa gën a yomb xam nga kay jël ay millions di ko def ci avion dem ba yegg la mu bëggoon wala la mu fa yaakaaroon gisu ko tourné waat bokkut ak ki nga xam ni moom jëmmuta xool la fa nekk moom na dem rek ndax boo gisee ñiy jël yoonu suuf bi mooy kooku moom dane naa dem rek Espagne wala muy Europe rek fu faay mën a dem rek danga naan naa dem jàpp nga ni soo yéegee di nga am la fa nit ña am nit mi ngi jël avion fii di dem di ñëw foofu parce que wërsëgam nekkul foofu mi ngi fii am nañu yor ay milliards te xamuñu yoon ay euh, kii aéroport mais nit ñi ñoo xoolu seen bopp te dafa mel ne yenn yi xeeb sa bopp la man damay bitu bu bàgg li may am bu ma ko investiree fii ci sama réew dinaa am liberté kenn du ma sonal kenn du ma tëj ji dóor te yaakaar naa dinaa fi mën a toog liggéey la nga amako si néew boo ko wàccee bokk kook say njaboot dégg nga mais su fekkee nag loola da nga koo xeeb te wërsëg yamul ah boo demee ci tamit ci immigration bi kooku tamit kenn mënu ci dara
waa léegi nag man ma xalaat ne kon yàlla na it ndax réewum Sénégal ñoom it eh, ci bërëb yi nga xam ne ñii dem ci gaal yi ñu ngi fi jaar ndax yëlutoon ñu am ay ay ay ay ay ay papier yoo xamante ni bi tey nit ki bu waree génne am réewum wala génne benn frontière war naa am papier yi war a am ñu doog ko bàyyi mu jàll ndax loolu bu ñu doon def ñi dem ci gaal yi du du du du du- du jeex. moo xam nga dugg oto di génn jëm foo mën a jëm parce que ñu bari oto la ñuy dugg ba génn frontière lu yëluwutoon fu ngay jéggee frontière bu ñu la gisu nga yor benn papier bu boo xamante ni bii bu wane ne da ngaa war a génn ñu dellu ci waat la.
ah yow fii da ngay gis Sénégal da ngay gis étranger yi dañuy ñëw di dugg ah léegi yow Sénégal tey Mauritanie gi rek booy dugg frontière Mauritanie foofu kay du leen nañ lay dugal biir Mauritanie mais fii naar day ñëw fii te benn kayit bu valable du ko yor pour dugg ci fii fii ku Ñëw ñëw Sénégal.
dugg fii Sénégal parce que da ngay xool ni xam nga yoon bi valable bu valable woon danañ ko teg ci yoon bu leer mais gaal nga def ci lu ëpp 100 personnes ñu war a am ay fan ci biir gaal gi ñii di xiif ñii di dee ku dee ñu tëmbal ci ndox bi loolu rek mën na laa torpe bi nga dee yow si boppam dara jotu la parce que da dafa nekk lu valable xam nga bu valable woon duñu toog ba guddi di di lëndëmtu wala ñuy dem ba Maroc di jaar ci ndox mi yooyu yëpp xam nga bu fekkoon yoon bu leer la day am i kayit kon du jar dee gi kon du méttee nii mais dafa valable beneen bi topp dafa mel ne dégg naa mu wax ne euh, heure bi ñuy dox ngelaw li day bari ba suuf si daf leen di fatt déggoo mu naan mu naan ko mu naan ko waax sil ndax euh, jàppoo ne kon ci doomam nekk tey ci réew mi yëlluwutoon waajur yi ñuy da- ñuy woo seeni njaboot di waxtaan ak ñoom ci luy tax ñu mën a toog ci réew mi waaye du yàllu rek nga bàyyi sa doom muy xëy di wàcc di xëy di wàcc mu jékki-jékki tàggu leen Dakar taj du woon yàllu yi ñoom ñuy woo seen njaboot di leen conseil xamal leen ne leen kët gaal yi may dégg nangam ak nangam ak nangam ak nangam loolu it jàpp naa ne bu ñu ko doon def di leen woo di leen di leen yedd laataa seen xel di ne ci loolu seen xel di ci ma ci nekk waaw mais conseil boobu bareetul ndax da ngay gis koo xam ne day yor doomam bu xëyee du xam ci lu mu nekk bu xëyee ñëw nuyu ko bu wàccee ñëw nuyu ko du xam ci lenn lu mu nekk mais entente boobu bu amee sa diggante ak sa doom yaakaar naa ne dina di nga ko mën a protéger ci lu bari mais su fekkee sa doom dafay nekk tey jii muy yor valeuru 10 000 francs di ci liggéey su ñëwee solu valeuru 200 000 wala mu yor portable 400 000 te lijjantiwoo sa doom boobu fu mu ko jëlee xam nga loolu mooy sànq xale su fekkoon ni sa doom danga am entente ak moom su ñëwee nga waxtaan ak moom ah yoonu suuf bi de ni ma koy déggee baaxul na nga ko maytu di ko gën a xiir ci mu toog ci dëkk bi kon sa doom du xalaat a génn dëkk bi di dem fenn mais parents yi tamit part de responsabilité boobu am nañ ko ndaxte ñoom seen doom yi lu leen neex rek neex na leen xale dina toll foo xam ne danga koy jege mu ñimeel ko sa bopp mu ñimeel la nga mën di waxtaan ak moom ci yu bari su ko defee moom même bu dul tukki bi sax da ngay gis xale boo xam ne des fois day dugg ci yoo xam ne day dugg ba pare yow parent bi nga doog a yëg
Euh, léegi boo gisee dégg naa mu wax loo xam ne it loolu euh, jot nañ cee laal tuuti sax mais dinañ jël si waat muy ñi nga xam ne tey dañu dem ba Libye ñu tee leen fa loolu it ma sama ma samay waxtaan ak benn sénégalais bu nekk bu nekkoon Mali bu nekkoon Libye moom daf maa xamal ne ma euh, am na ci yenn sénégalais yoo xam ne ñoom dem ci gaal gi yiy teelu leen Libye lañ nekk mais ñoom sénégalais yi jóge sénégal ñoom ñooy def effort ba nu mën a ñëw libi bu ñu leen jàppee it dañ ci gis koo xaay bu ñu ko jàppee ab sénégalais ci boppam mooy woote ay waa këram di leen wax ne leen dañ ko dafa war a fay trois cent mille te fekk cent mille francs la war a fay am na ñu ne ci réew ma doomu réew mi nga xam ne ñoom bu dee dañ la jàpp ngay ngay ngay saabees ci la- ci libi yow euh, déggoo làkk wi ki dëkk ci dëkk bi dégg làkk bi te tëjuñu ko moom bu ñëwee ci prison bi yow yaa yow yaa koy àbb sa téléphone parce que man gis naa koo xam ne bi ñu ko jàppee benn waay bu nekk libi moo moo koy abal téléphone am waa ji moom wax ci làmmiñam ne ma bi ñu jokkoo téléphone boobu libi la nekk mu ne ma téléphone bi may wuyoo ñi mooma koo ŋàpp ci biti ne ma léeg-léeg da ngay dox mu jàggi rek ñu jekk ñu ñu tiire la bal nga daanoo te bi mu ma yox loolu moom mi ngi libi booba mi ngi jël engagement wu ngir dem es dem Italie Euh, ñu jàpp ko ki nga xam ne moo doon woote di di wax ne nañ ko nañ ko nañ ko yónnee xaalis dañ ko war a fay 300000 sénégalais bu ñëw nag moom ma wax ne ma bari na ñooñ fay 300000 ak 400000 ak 500000 maanaam kañ ka woote wax ne da- dañ dañ koy fayiku nangam moo ko yokk bu ñu la nee na bu fekkante ne ñoom bu ñu la jàppee dañ laa laaj 100000 francs maanaam sans courtien lay am man maay fexe ba nga mën a jot say waajur maay wax ak say waajur ne leen nangam lañ ko laaj su ko amul du génn loolu it kon jëkkam ay sénégalais bi ndax it woon sénégalais it moom it muy wallu moroom sénégalam donte ne tey damaa jóge fii man donte ne man damaa jóge fii dem te yàlla dogal na fi maa ngi dem xaw ma danaa gis sama morom sénégal xaw ma du ma gis ndax du woon yàlla bu ma ñëwee ci réew moo xaayee xaw ma ko man sama morom sénégal ma fi nekk mu giidee ma xam ma ne lii ngay dugg baaxul bu fekkee mën ngaa yem ci réew mi liggéey liggéeyal bu fekkee mënoo yem ci réew mi liggéey soo mënee wàññeekuwaat wàññeekul mais jël en charge ci gaal yi parce que am na ku ma wax ne ma ay guddi nee na am na heure yoo xam ne dañuy nekk ba dara yëngut nee na dañuy dem am na heure heure yi ñuy départ yoo xamante ne bii daanaka nee na ma euh, waxtu yi sax am na ci ñoo xamante ne bii maanaam buñ tëkku seen fit dëgg-dëgg duñ ko ñemee dox wuti ci ci ci tefes tefes bi parce que dañuy sàcc. léegi loolu xalaatoo ne kon sénégalais bi en tant que sénégalais bi nga xaay daal tukki nekk ci fu mel ne Libi di fa liggéey nga xaay moom jëlul décision dem ci géej gi kon bu sénégalais moroom ñëwee kooku lan nga jàpp ne war na koo conseil
non kooku moom sénégalais bi su xamoon ni su su ko su ko conseillé du ñëw kon du du- du ko conseillé parce que kon du ci mën a am xaalis boobu nga wax ndax Touba gii ñiñ fi jàppoon ñiy jaay nit ñi libi Touba lañ dëkk
ñi leen maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk Libi maanaam ñi nekk libi naari ñi liggéeyal ñi nga xam ne ñoom ñoo lay influencé fii nga dem libi fii ngay versé xaalis bi Sénégal ñooñu jàpp nañ leen dégg nga ñenn ñi TFM lañ leen jàppee ci Ndoye Bane ñenn ñi ñaari étage bi lañ leen jàppee fi mu dëkk kon loolu xam nga am na ñoo xam ne maanaam ay ay courtier lañ.
di- waa ay courtier lañ yoo xam ne dañoo toog léegi ñoom ñooy vest ñoo ñooy rë- jël xaalis bi yow day ngay dem soo demee nag noonu nga ko waxee parce que am na sax ñi ci jéem a jàll mais ñi ci des moom dañ leen a sonaloon loolu li bi ji moom ku ko setaanu rek mënoo xam sax niñ leen doon méttitalee te tant que sénégalais comme yow nag di la def loolu kon nag nu ñuy def jël ay naar di leen jaay ay sénégalais ndax lan xaalis xaalis boo xam ne boo ko lekkee xamoo foo koy jël kiyee ji ah ñu noonu nag mais léegi kon man gis naa ne kon euh, yëf yi nekkul ne libi rek ñi nga xam ne ñoo tax nit ñi tukki ne nekkul ne libi lañ nekk kon Sénégal gi am na ñoo xaay dem nekk nañ fi ñoo xam ne ñooy courtiers yi parce que ma sama gis koo xam ne dem na lu mat deux gens euh, ay waajuram du ko xam fu ñu nekk mais bi mu demee ba leer ay nit lay jokkool fii ñoo xam ni fii la ñuy versé xaalis dem ci gaal gi loolu gis naa ko moom parce que am na ku ma dëggal koo xam ne ci yow loolu la jaar parce que dem na ñaari at xamuñu fu mu nekk. ñaaraat bi ñu demee ba toll ci ba bàyyi dina soxnaam mu tollu béréb soxnaam am na doom gannaaw ba ñu jënd ko bi ñu demee ba xam fi mu nekk moom nag jaarul ci gaal gi dem mais fi mu nekk euh, bi mu yeggee ni si yàlla nekk mais dafa mujj yàgg nekk sans courtier boo xam ne moom mooy jokkoo comme xam na bande bi ni muy demee. moom mooy jokkoo Sénégal. ay gaayam ne na ko woo gisu bëgg a dem boo amee boo amee kenn man am na ko mas a wax ma loolu. ne ma gis naa koo xaay danaan boo amee kenn boo ko booleeg benn client mu may la kenn. soo ko booleeg ñaar may la kenn waaw soo ko booleeg ñaar ñoo xaayee mën nañ ko wersi dem ci ga- gaal gi. yow mi ko booleeg moom da lay wax ne boo amee benn boo amee benn client li muy wersi yow laa ko yaa koy moom boo amee sa mbokk ma may la ko mu yóbbu la ko du fay dara loolu it kon gis nañ ne kon euh, euh, euh, jamono ju metti wala réew mu ñàkk liggéey wala lan nga jàpp ne kon moo waral sénégalais bi waxtu wu ne xelam mënta nekk ci réewam.
mais Sénégal tamit benn affaire da ci am état bi su fekkoon ni dafay def fii ay formation yoo xam ne centre de formation yoo xale yi mën a liggéey ay usine bu ko defee xale yi dinañ mën a toog tamit seen réew liggéey mais fii wax dëgg yàlla dafa amul liggéey bi jeunes yi mën a liggéey surtout nag Touba parce que Touba xale yi lu ñu am commerce dawal charrette mbaam xale boo niveau de ku war a am niveau ci sa njàng doo ko am parce que xale bi 10 ans lay am ñu dugal ko ci charrette mbaam xale bi nga xam ne bi ngi dem ba xaw a majeur tuuti commerce la xam xam nga fii daanaka dañuy def marchand ambulant rek bu fekkoon ne am na ay usine am ay centre yu ñu leen defee formation kon xale yi jàpp naa ne dinañ mën a toog parce que dangay jàng ba am yenn niveau yi te doo am liggéey loolu noonu moom potu état bi la parce que képp koo gis tamit muy dem daani dooleem dafa bëgg a dimbali waa waa ay fameem bëgg am ni ñëpp am ndax teraanga ñëpp ko bëgg mais tamit loolu tamit bu amul nag sa xel du nekk du dul naa dem uti comme samay morom góor góor rek la ndax ñi nga xam ne ñoo yor seen doom yi demul ci gaal pauvreté bi moo métti soo gisee sa yaay di sonn sa papa di sonn luy xel sa xel lu mu lay jox naa jéem a dem def ni sama morom def yëfi góor te yoon bi ñuy jaar du yoon bu baax yoon baax mais jàpp naa ne bu ñu fekkoon fii daal am na ay usine am ay centre de santé ay yu ñuy def formation Mhm.
xale yi ku leen jàppale ñu dem ndax mënoo jàng ba am yenn niveau yi te mënoo am liggéey kooku tamit neexul
Euh, kon daal man jàpp naa ne euh, jafe-jafe am na boo xam ne euh, way jur yi moom ci lañ bokk way jur yi moom kenn demul ñu des ndax li tax way jur yi kenn demul des waaye ki nga xam ne it dafa dem ba yegg kooku it problème bi jafe-jafe bi gën a am ci réew mi ci la bokk ndax ki fexe ba jaayante ba dem ci coobare yàlla egg te jàppale ni mu def ba yegg rek ñëpp war nañ ko def te boo xoolee moom téeméeri nit yi mu jokkool boo xoolee téeméeri yooyu yëpp buñ def buñ déparé dem juróom-ñeent fukki dañoo def ci ndox mi bari na ñoo xam ne ànd nañoo nit koo xam ne ñoo ko jëlee kër ndayam ak baayam wax ko la tax mu dem bañ yeggee ñoom bi ñu yeggee ñooñu dañoo des ci dañoo des ci yoon am na ñoo xam ne gaal gi ñu dugg ñi ñu àndal ci gaal gi lañ des ñoom yàlla dogal ñu yegg ndax yow miy dugg ci gaal ànd ak say nawle duggee ak ñoom Touba ñooñu dem ba sëñ bi ñu des ci biir ndox mi mu wóor leen na yow diw mii yéen a bokk gàdd boote seenum sàkk Sénégal nga ne ko nan dem ci géej gi nan dem ci tukki mi jaar ci géej gi tey jii nga dem ba gis moom mu faatu nga yegg loolu yi dama jàpp ne kon yow waroon ngaa jëlaat sa téléphone yow wala nga def sa appel yaa ngi Sénégal am na ay télévision Sénégal am na ay rajo nga wootee wax ne man la diw sangam man kat dama tukki waaye jamaa jaar ci yoon bi nga xaye anam bi nga xaye jaaruwut ma bëgg nag yàlla mi ma may tawféex ba ma yeggale ma bañ nag ñeneen def ko képp koo xam ne da ngaa bëgg a tukki na nga xool beneen yoon booy jaar yoon boo xaay yoon bu anam yoon bi jaar ci anam bi ñuy tukkee la nga jaar ci ba yàlla indi la ci réew mi waaye képp koo xam ne jóg nga jaar ci géej gi da nga ci fekk nanga mag na wax li nga xam ne moo am ci géej gi wax ndox mi wax li- eh, co- conséquences yi nga xam ne yëpp eh, ne ci biir ndox mi ngir jëm ci dë- réew moo xaay xamoo ko benn kii yow kii dawal gaal gi mën naa am xamu ko benn ndax li tax tax kii daal gaal gi xam nga mooy gaal gi du dellusiwaat bu ngeen yeggee gaal gi du dellusiwaat bu ngeen yëgguti gaal gi du dellusiwaat kon ma kon éventuel na ñi ne ñi ne ci gaal gi ñëpp kenn ku ci xam Espagne boo doon boo doon kenn nit a ku ci xam wala ñaar mais ñaar nit ñi xam gaal ñi xam ñi xam yoon wi li nga xam ñoo yore gaal gi di ko continuer mais ñoom ñaar bu ñu demee ba feebar ci biir gaal gi ñu mbooloo mi xam-xam kon ci ñoo xam ne ñuy des parce que jagam yéen ñi ngeen àndal ñëpp ñaar wala ñett ci xam yoonu Espagne ndax ay mool la ñuy doon xañ na mën naa am xam gi sax dama ne mais ay mool lañ doon doon mën nañ ndox léegi mool yooyu nag bu ñu demee ba ci biir ndox mi nag mais feebar day am dem ba mu jaag nga tàggoo sago day am suñu demee ba ci biir ndox mi ñoom ñu tàggoog seen sago ci biir ndox mi loolu xam nga gaal googu wóor na la moom du gó- doon gaal guy teeri parce que ñi ñu jàpp barki démb ci gaal yi wax nañ dañu réer kon wax na la kon ñi yoroon gaal gi kon xamuñu fu ñu jëm ñaata nit lañ lañ ne la ñoo def ñoo ñoo ñoo ci faatu ñaata nit lañ ne la ñoo ñoom lañ ci sowee téye leen nga xam ne ñoom bu ñu leen bu ñu leen sowee wutoon ñoom ñoom ñëpp mën nañoo des ci ndox mi ndax ku réer moom rawatina nga réere ci biiru géej da ngay dem ba mënatoo xam fa ngay dem kon leer na la kon ñi yoroon gaal gi kon maanaam amu- amuñu xam-xam ci ci ci fi ñu jëm buñ ci amoon xam-xam loolu duñ réer kon loolu yàlla na kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma ñoom it ñuy def ay appel ak waa réew mii wax leen li nga xam ne moo nekk ci ndox mi loolu war yàlla na loolu it xalaat naa ne kon waroon nañ ci indi ay xalaat waa ki nga xam ne moo dem ba yegg xam li ci ndox mi kooku du- bu waxoon lii moo ak lii moo nekk ci ndox bi kon gars yi dinañ wàññeeku mais duñ ko def déggoo ma ne la ki nga xam ne daa yegg Eh, ñu jël mbokk mi 88 628 19 02 88 628 19 02 salaamaaleykum.
waaleykum salaam bonjour.
Eh, ku baax ki tureeg fay woote yaa ngi doon teewal émission bi
ma ne émission bi ma ko taxaw Moustapha Diagne laa tudd.
sëñ Moustapha Diagne ñi ngi waxtaanee lu jëm ci wàllum tukki mi nga xam ne dañ koy def te jaaruñu ko ci anam bi jaadu muy ñi nga xam ne ñi dem ci mbëkk mi ñuy waxtaan solution bu ñuy def ba mën a jaar ci anam bi nga xam ne moo jaadu ngir mën a tukki.
waaw loolu ziare soxna Oran Ndiaye ma nga dalal. ak soxna Soosu Fall. ziare ba bala bi sëñ Mor.
Eh, ñu sant ko gërëm ko doon na def eh, contribution bu am solo 88 628 19 02 88 628 19 02 yéen ñi ànd ak Benno FM 106.0 émission yi émi- eh, émission immigré yi ñuy waxtaane tey lépp lu jëm ci wàllu tukki bi nga xam ne dañ koy def sa jaaruñu ko ci adam bi jaadu ñuy waxtaan nag ba xam nan la ñuy def ba am solution boo xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki danañ dem jaar ci yoon bi nga xam ne mooy anam bi nga xam ne moo jaadu bu ko defee soxna Oray ñu bàyyi la soxna Oray ndax it nit ñi jàpp ñu ne euh, visa dañ koy jaay ba tax ñoom it ñu tër tër yi dem ci ci ci ci ci ci gaal yi parce que dëkk li muy financé ndax kuy dem mën a ñàkk 400000 wala ñàkk 500000 egg ñu jàppale ñaari yoon ba ñetti yoon ñu jël mbokk mi yëglu salaamaaleykum kooku rëcc na ñu ngi koy xaarandiwaat 88 88 628 19 02 88 628 19 02 seen émission émigré yi tey ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu tukki mi nga xam ne ñu ngi koy def te jaaruñu ko ci aram bi nga xam ne mooy jaadu muy ñi nga xam ne ñi ngi jaar ci gaal yi di dem ji réewum tugal euh, te gis euh, xew-xew yi nga xam ne yépp mi ngi ci am muy téeméer boo xam ne génn na ci sunu réew mi jëm ci réewum tugal moomee lu ci ëpp juróom-ñeent fukk yee dañu des ci biir géej gi euh, la cay jàll doon lu néew ñooñu nag ñoo indiwaat sama bopp ñi nga xaaye nag ñooy dem ci géej gi ñuy bëgg a waxtaan indi ci solution salaamaaleykum ñuy jaajëfal mbokk moom moom it a na kon soxna roy dama jàpp ne ñi nga xam ne yàlla dafa dogal na ñoom ñi ngi dem di tukki ndax yëlluwutoon Sénégal wala ndax yëlluwutoon ñi dem ci ci gaal yi laataa ñu ñuy sóobu ñu fexe am koo xam ne ku am xam-xamub lijjanti kayit la ñu laaj leen kayit moom ci ban anam lañ koy lijjanti parce que léeg-léeg nga gis kuy dem ci gaal koo xam ne tey benn jàngul mënta lire aw turam amul carte d'identité mais ay wax rek ci lay demee ay wax ñu da koy woo téléphone rek informé ko mu dem salaamaaleykum maaleykum salaam.
Eh, ku baax ñu ngi lay nuyu di la siyaar ñoom la Thiaré na ngay dégg.
sant ak muñ Modou Ndiaye Touba Yane Darou.
Mor Ndiaye Touba yoon daaru yaa ngi doon déglu waxtaan wi waaw maa ngi koy déglu waaw.
Eh, kon ñu bàyyi la nga ni condition ci waxtaan wi la ngay mën a indi ñi nga xam ne ñi ngi dem ci gaal yi te jaaruñ ci alam bi jaaru ah, rek ci nag ñu ngi koy jégul xam naa ku dugg rek automatiquement bàyyi ba mu indi condition am ndax tam naa téléphone bi du ko may muy xaar 88 628 19 02 88 628 19 02 yéen i ngi ànd ak seen rajo Benno FM ci fréquence 106 point 0 kaddu gi bàyyi ko fii ci rond point bi dend ak mairie bu Touba xaalis bi dëgmal jëm ci garage bi bees bi rajo bi ñu koy déglu ci YouTube boo defee rajo Benno Touba Mbacké ñuy jaajëfal ñi nga xam ne ñoom it ñi ngi teewlu jataay bi ñoom ñëpp ñoo ngi jot seen i message di waree ne jataay bi am na solo ñoom ñëpp ñu ngi leen siyaare baax baax te di leen ndokkeel di rafetlu ànd bi ak safoo seen rajo Benno FM soxna Uray kon ndax nit ñi jëpp ñu ne dañuy jaay 800
mais visa bi. am na ñu koy jaay. waaye li gën mooy topp yoon bi. parce que visa. ay kayit yooyu lijjanti yoo xam ne boo demee lijjanti ko. mën naa am yàlla dogal nga am visa chance la rek. mais nit ñi da ngay xool ku toog fa mu toog. nit ñëw ne la man de damay lijjanti visa. ay 3 millions 500 yóbbu la ba nga egg. nga yëkkati sa 3 millions 500 jox ko mu dem doo ko gis du fi benn du fi ñaar mais li gën. demal nga jël sa bopp yow sa jëmm sa responsabilité bopp nga dem lijjanti ji say kayit déposé comme ñëpp. ki lay jaay loolu day dem déposé ji ko toog di xaar. mais pourquoi pas yow waroo mën a dem jël say kayit yu leer naññ. dem déposé visa toog xaar yàlla am na ñu koy def ñu du benn du ñaar ñoo xam ne ci lañ dem mais soo xamul dara tamit ne yoon bi rek nga gis yoonu tukki. mu gën a gaaw muy lan gaal. ak jaar ci désert bu bon bii. nooy nooy mujjee def parce que ñoom defuñu ci gëstu. dangay dem benn ambassade nga dem xool nga lijjanti kayit ya ña laaj nga dem def sa formalité lépp lépp déposé toog di xaar boo xaaree yàlla mën naa dogal ne yow di nga am visa ci muy yomb nag ba dee boo demee dinañ la wax lii ak lii lañ lay laaj mais nit ñi duñ def loolu visa dafa cher lañ lay wax te demuñu xool ba xam loola ndax ay lijjanti la wala ay leneen mais xale yi pourquoi pas ñu muru moo jël sa bopp dem lijjanti ji say kayit fu nit dugg ne la fii ngay lijjantee lii nga dem foofu lijjanti. soo paree nga dem ambassade nga dem def di sa demande toog di xaar yàlla nag.
kon daal gis nañu ne kon Sénégal am nañu jafe-jafe ci wàllu 800.
am nañ ko trop sax.
parce que am nañu jafe-jafe bi mooy ki bëgg a tukki. am na xaalis mais am xaalis sax du tukki kon.
dëgg la.
parce que bu fekkonte ne am xaalis sax naa tukki yow boo amee xaalis mën a am 800. parce que da nga gis koo xam ne dana liggéey Sénégal ba am xaalis bu fekkonte ne tey 800 dana tax mën a tukki mën a génn. dem voyage si mën a jënd ay marchandises mën a ñëwaat ci réew mi mais li ñu koy gëmal mooy 800 boo mu joxee 4 millions ma yóbbale Italie mais nag imaginé ne yow 4 millions yooyu liggéey Sénégal yow nga ne Sénégal di liggéey ba am 4 millions yoo xam ne yow yaa ko ñàkk Sénégal ndax yow ki ne Italie ak Espagne ak fu mën a nekk ci réewu tugal yooyu di la woo naan la ñëwal ci réew mi boo ñëwee ci réew mi da nga am nangam ndax yow du woon jar kon yow mi nga xam ne ki la yow naan la ñëwal même bu la waxoon sax. demal wuti 800 gis naa ko la mën a yóbboo 4 millions ndax doo woon def taxaw seetlu ni nga def ba liggéey 4 millions yi est ce que li ngay temps bi ngay jël ba dem ci réew ma te réew moo xaay bu ñu la cëppeelee doo am benn kayit loolu it nga jàpp ne du jafe-jafe am na ko yëg lu ñu jël ko pare salaam mbokk mi salaamaaleykum maaleykum salaam.
soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaar yaa ngi doon teelu jotaay bi waaw man la soxna Fall.
soxna Fall kon ñu bàyyi la nga indi sa condition ci waxtaan wi.
maa ngi jéggulu nag. li tax ñëwuma def émission bi. dama am fa ma demoon. Mbour te léegi laa yegg si.
dëgg la waaw.
waaw maa ngi jégalu bu wér nag.
mën nga ñëw si sa contribution ci waxtaan wi yaa ngi ko doon teewlu.
waaw xale yi moom li ñu- li ma doon wax rek wax naa ko fi wax dama koy waxaat. il faut que ñu am moyen.
il faut ñu am moyen.
xale bu il faut que ñu am moyen.
Mhm.
su ñu amul moyen rek dañuy daal di dem ci seen géej gi te doo leen mën a téye mënoo leen téye. te man li ma gën a jaaxal li tax euh, ñuy jógee Italie Espagne Amérique. di ñëw visa yomb ci ñoom ñoom ñu dëkk ca dëkk yooyu. li tax ñun bu ñuy dem yi visa bi jafe ci ñun. loolu jar nañ ko wax jar na xool jar na xool.
jar na xool jar na gëstu. ñoom suñuy ñëw dafay yomb. ñun li tax ñun bu ñuy dem mu jafe ñu ba suñu doom yi di des ci ndox mi. nañ ko xool.
nañ ko xool wax nga dëgg wax nga dëgg.
nañ ko xool li tax ñoom visa bi yomb ci ñoom ba bu ñu demee ambassade na Sénégal lañ jëm ñoom ñëpp ñu may leen visa ñu ñëw vacances. li tax ñun suñu suñu doom yi suñu demee ambassade duñ leen may kay ñu di leen jaay visa yi di leen exploité di leen laaj xaalis bu weex dal ay 3 millions ay 4 millions ma yóbbu la am na fi. loolu nañ ci wax.
kon daal yow da ngaa gis ne euh, Sénégal euh, benn jafe-jafe bi njëkk a am mooy Sénégal bi nga xam ne dafa nekk Sénégal ngir war a génn am réewam waaw.
am na jafe-jafe bu génn am réewam ngir ma ngir 800 ñu Ba gis ne bëri lu- ñu- waaw waaw léegi léegi léegi kon ñu gis ne ñi nga xam ne ñoo ñu nekkal euh, réew tugal yi nekkal ñu sunu ambassade yooyu ñu nekk ci réew yooyu pour bu ñu bëggee ñëw suñu réew day yomb liggéeyuñu liggéeyuñu Ah, kenn ku ci nekk sa njaboot moo la fa tax a toog ak say doom ku ci nekk sa doom dana dem wala sa mbokk ku bëgg a dem di nga ko wutal visa mu dem suñu yombaloon ni ñu yombalee ñuy ñëw Sénégal fii mhm.
suñu doom yi duñ dem ci géej
kon daal jafe-jafe bi daal yow gis nga ne euh, loolu ci la bokk mooy mooy amul ci la bokk moo ko sooke ku ma doon condamné tey ñooñu lay ñoom laay condamné tey maanaam ñooñu mooy ñan ñooñu rek nga wax de mooy mooy ñi yore visa yi nekkal ñu ca ambassade ya te Ah.
war ñoo may sunu doom yi ñu ñu visa ñu dem tukki ñooñu laaj bi tey bu doon boo yore sa benn un million dem ambassade ñu may la visa nga dem tukki doo dem ci gaal gi nag nañ waxante dëgg loolu it est-ce que nga yaakaar ne ré- euh, njiitu réew mi moom loolu amu ci parent
kooku moom ku- kooku moom bu ci amee taari doxu waalam ndax ñaata nit ñoo dee ci diggante bi te dëggu fa tànk bala mu yor avion piim nit ñi fan lam nit ñi war a nekk ak lii mu lan moo ko waral bu ci waxee doo ci waxaat wala kum njabal nga wax ci dootoo ci waxaat doomam dugg ci rakkam dugg ci kon kooku munu ci débat ñun ñu yor suñuy doom ak ñu nekk ci dëkk bi nañu lijjanti lii mooy lan kon koy lijjanti de nañ lijjanti lii mooy lan lan moo tax suñu doom yi di dee ci ndox mi lan la laa bëgg a xam man soxna Fall mais soxna it yow gis nga euh, boo dégloo théâtre bi dégg nga ci ci ci njëlbeen gi xaadim xaadim moom dafa woo Moodu ne ko ñëwal ci réew mi boo ñëwee da nga am liggéey waaw da koo am ah daa am liggéey moo tax mu wax ko loolu mais ndax Am na xaadim liggéey ndax ko woo.
ndax xaadim warutoon wax fi mu jaar ba ñëw doog a am liggéey waaw ma- bu dee war na ko ko wax ndax nit dëgg neexul daal fi mu jaar ba yegg defe naa bu métti woon du ko woo su ci amoon tolof tolof du ko woo xëy na dafa dem am jàmmam am jaaram bu baax dem nit ñaa ngi dem te amuñu tolof tolof nit ñaa ngi dem di am ay tolof tolof nit ñi ñaa ngi dem amuñu tolof tolof mais am na ñoo xam ne amuñu am nañu tolof tolof waaw waaye léegi nga- nga yaakaar ne est-ce que li li li li- li li yegg amul tolof tolof est-ce que li des amuñu tolof tolof ëpput ñii des ñoo ëpp ñi yegg
waa léegi it waaw mhm, ñoo ëpp ñi yegg mhm.
waaw ñi des ci géej gi ñoo ëpp ñi yegg
waa lé loolu it eh, benn eh, jël dégg naa ci tomb bu am solo mooy ñi nga xam ne yàlla dogal na dañoo nekk ci bitim réew nga xam ne dañuy bëgg a ñëw sunum réew mu yomb leen waaw kon yàlla na kon noonu it sunum réew ñoom fexe bay ambassade yi fi nekk ñoom it jegam noonu yombalal nañ leen ñoom foofu pour ñëw sunum réew ñu yomb ñoom war ñoo yombal doomu Sénégal yi ñoom it pour bu ñu bëggee ñëw ci réew mu yomb gis nga boo jëloon oto war a jëm Mali mhm.
bala ngaa dugg Mali di nga wax lu set
Hmm.
boo jëloon ci oto dem Murtani bala ngaa yegg Murtani di nga wax lu set
Eh, eh, soxna Ouray ñu sant ko bu baax gërëm ko moom it soxna Fall soxna Fall ñu ngi koy jaajëfal baax baax moom it eh, xam naa waroon na eh, teew ci jataay bi waaye xam naa ngantaan loolu rek waaye yoon yimul ci benn incha allah jomul ci beneen dimanche te dañu mën a àndandee ak moom eh, indi na contribution bu am solo nag wax na tomb bu am solo soxna Ouray ndax eh, boo xoolee xam naa waxtu yi sax mi ngi jeex parce que li des si waxtu bi mën tuut ay 4 minutes lay doon waaye dafa wax ne eh, ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñuy jóge ci seen i réew di ñëw sunum réew heure bu ñu bëggee dikk vacances Sénégal day yomb ci ñoom duñu am benn jafe-jafe parce que cooli cooli mosu ko dégg ñu ne la ah ñii kët dañoo jóge Espagne wala dañoo jóge Italie jaar ci yoon bu jaaruwut bi ñëw Sénégal xam nga yow doomu Sénégal doomu réew mi rek ngay dégg Afrique bi rek ngay dégg ñoom ñi ngi jaar ci gaal yi ngir jëm ci biti réew ci réew yu tugal yi mais mosagoo dégg ñi nekk bitim réew mukk ñu jël gaal ñëw ci réew mi kon wan na la kon nañu jàpp ndale ñoom foofa bañ mën a ñëw ci suñu réew kon ñoom waroon nañoo mën a jàppandal ñoom suñu doomi réew yi bañ dem si ba mën a dem seen réew mi loolu soxna la wax lañ man la nga ceen lu am solo la waaw loolu de lu am solo la soxna ñu ngi koy ziare bu baax parce que jotaay bi waroon na cee teew mais dafa am empêchement ndax dafa jóge voyage xëy na sonn affaire yooyu moo tax teewu ci ñu ngi koy jaajëfal bu baax Eh, ñu jël kii wu yëglu 88 628 19 02 88 628 19 02 Benno FM salaamaaleykum waaw waaw man la soxna Fall.
waaw soxna bisimilah ñu bàyyi la kon nga yaa ci waaw téléphone comme bi li ma la wax rek.
Mhm, xam nga duñu ko ko ñoom jëluñu ay gaal ñëw.
mhm,
ñoom.
mhm, jëluñuy gaal de waaw ñooñu.
déedéet
waaw lan moo tax ñuy jël gaal di dem.
waaw loolu xalaat de
ñun jëluñu ñoom ñoom jëluñu gaal ñëw.
déedéet jëluñu gaal de koo fi gis ñu ñëw ci bato ba dugg te ci bato bi dafa yëg ay bagaas ba yegg si port. waaw kon lan moo tax ñun ñuy jël ay gaal di dem. duñ ci wax.
waaw kon xam nga soxna yow bato yooyu di dem dana yabaale ay bitit di dem.
soxna waaw xam nga dama xalaat ne eh, ñoom ñi nga xam ne dañuy jóge ci seen réew du ñëw suñu réew ñëw Afrique moo xam fu ñu mën a ñëw ci Afrique mais déggagoo benn réewu Afrique bu génneegun image wala nga dégg mu wax ci ci- ci internet wax ne gëmuñu suñu bopp ah wax ne sene suñu autorité bi yi fi nekk gëmuñu suñu bopp aha kon daal da nga jàpp ne loolu suñu doomu réew ñoo gëm seen bopp aha gëmuñu suñu bopp Ah, léegi bu ñu bëggee gëm suñu bopp looloo waral nit ñu weex ñuy yàpp ñu gis na nit ñi mënoon nañ ko lijjanti ci ñaari fan wala ñetti fan li maanaam li waral ñuy tukki te jaaruñ ci anam bi jaar war nañu ko gént ci noonu ci ñaari fan Ah, ngir naa bu fi dëkk ñu xam ne li bi nga dëkk ni cib natte la mun naa mën a ko delloo waat da sa dëkk ma leen indi li ñu suñu waa Sénégal
waaw bu amee bu yàggee de benn benn Sénégal du nekk ci réew- seen réew yooyu bu ñu cib natte ñu fi nekk rek te dëkk li bi delloo waat leen seen dëkk ma leen indi leen ñu suñu doomu Sénégal wala ñu dëppaat xale yi ñu dëpp ñu bis koo ci def ñaari yoon ñetti yoon bu dikkee nga jàllale ko saamet tëj ko ko ñaari fan ñetti fan bu dikkee dootul jëlaat gaal bi dem mais est-ce que soxna yi yaa ngi bàyyi xel leen ndax yaa ngi dégg ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew yu tugal yi ndax mas nga dégg seen i ndaw yu waas yoo re- yoo dégg ñu ne tee nañu leen ci eh, benn biir benn eh, kaso koo ci dégg ci te doo ci ko réewu dégg.
Afrique mas nga ko dégg déedéet ndax mas nga dégg it kuñ ne la dañ koo jàpp ci réewu Afrique moo xam muy Sénégal dégg ko dañuy laaj lu ay nangam nangam mais boo ko doon dégg dégg ko ci bato yi jóge ci Europe di ñëw kon léegi suñ doomu réew mi nga xaay ñoom it ñu ngi leen di jàpp di ñu leen laaj loolu loolu it yëluwutoon it eh, nguur nguur seetaat ci beneen solution bu mu ci jël daal dégg li ma la wax lépp ci nguur gi la su ko bëggoon a lijjanti mën na koo lijjanti xëyu ko dayu ko xëy dayu ko ngoon
yooyu comme xëy de dañoo am faiblesse li ñu war a lijjanti lijjanti wuñ ko waaye ñun danañ door seen loxo ci ëkk nag dëgg la de
danañ door seen loxo ci ëkk ndax ñu li ñu war a lijjanti ñoom lijjanti wuñ ko waaw loolu de loolu de kon soxna xanaa kon jafe-jafe la de jafe-jafe bu rëy mais nag soxna xam naa man ñi ñëw ñi ñëw Sénégal amuñu problème ñi ñuy dem am problème tey boo doon voyage fii rek war a dem diggante bii ba ci Serigne Fallou Mbacke doo doy bala ngaa dugg Mali di nga wax lu fet ñu foo njam da ngay samp mille francs ñu lay lijjanti di la laaj ay di la laaj ay kayit di la laaj kayit ba ba nga yegg léegi ñun bu ñu ñëw ci suñu dëkk bii nag am fierté nag am liberté ba dugg suñu dëkk bi ba di leen fi di fi def lu leen neex ñun bu ñuy dem ci suñu dëkk yi suñu doom yi dem ñu di leen fa rey di leen kidnappé di laaj xaalis waaye nag bu kenn ñu nekk fii di di jaay xale yi xaalis képp képp ku ko def da xamal na doo am jàmm ci àddina
ah mais soxna nag loolu loolu jafe-jafe la de waaw bu dee jafe-jafe ñun liñ ci man ñi ko war a lijjantee ngi fu lijjantiwuñ ko mais nag mais nag mais nag mais mais mais mais man nañ ci dara parce que waaw mën nañ ci dara yàlla yàlla dina tawum ndoxam.
non man yàlla dina nu may koo xam ne bu taxawee fii wala mu toog ci dëkk bi. suñu doom dootuñu jéggaane di dem ci géej gi di fa dee.
Euh, mais mais soxna yi loolu it euh, mën nañ ci dara mais sunu doomi réew yi it ñoom it war nañu diisoo ñàkk a diisoo it bokk nañ ci leen teg loolu.
yow nii soo soo doon da- dawal sowet mbaam ba mu yàgg ñu yëkkateeg oto jox la. kala may oto bi bu dee nit ku xam ne.
Euh, soxna rëcc na mais mooy doon sunu auditeur bu mujj soxna Uray waxtu wi jeex na xam naa beneen jataay incha allah danañ eh, danañ dellusiwaat parce que tomb yi ñu doon waxtaan am na solo lool te it wax dëgg yàlla nit ñi mel nañ ne ko santaante wu nañ ci waxtaan wi xam naa kon dañ lay bàyyi rek eh, nga def eh, conclusion bi nga xam ne soxna def na ko eh, ñu mën a yëkkati jataay bi beneen dimanche incha allah.
waa soxna fi mu waxee tamit dëgg la Mhm.
mais tamit man jàpp naa ni doomu réew yi ñuy wax ñun duñu ñëw dugg ci gaal yi comme ñu jóge Europe di ñëw loolu duñ ko def parce que nag fii da ngay gis xale boo xam ne day judd ba tollu ba war a takk jabar te du am kayit dafiy am mais ku respecté wul bulletin de naissance kooku tamit doo mën a am kayit yu la yóbbu fenn waaw am na am na loolu am na.
kayitu suukar yoroo ko sa poche foo jëm fii ngay resté mu ñoo xam ne mosu ñoo woote.
de fii ngay toog laa la wax mais ñoom boo juddoo fi nga juddoo bébé bi dañ naan la xaaruñu ay bis bu dellusi de comme fii nii bébé bi dañ naan la nan la tudd nga ni diw ñu dem ñu ne yóbbu ko commune nga uti ko kayit yaayam bu amul kayit jour boobu lay am kayit loolu amul fii Sénégal tamit nañ waxante dëgg non si mënu ñoo bokk Europe ak fii bokkul kon li tax ñun ñuy dem di dem Europe mais ñi nga xam ne ñooy dem di immigré ji nañ gëm seen bopp toog fii bu ñu toogee fii liggéey jàpp naa ni dinañ am lu seen moroomi am xam naa waxtu wi jeex na soxna Uray kon ñu bàyyi la nga tàggoo.
waa baax na ñu ngi rafetlu émission bi Mhm.
di tàggu di sant tam Moussa kii laat Moussa Fall mi duggoon te mu dagg Mariana ñu ngi koy jaajëfal bu baax ndax bàyyi woon na xel ci émission bi di gërëm waa ñaari étage yi ma jóge suñu waa kër ñoom ñëpp di gërëm tamit sama benn càmmiñ Ibrahima Gueye na- gëm sa bopp ndax bi may ñëw mi ngi may woo ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak soxna mi nga xam ne waroon naa teew te teewul ak suñu auditeurs yi auditrices yi ñu doon déglu lépp di gërëm DG bi Mortala Fall sama càmmiñ ak yow bi ma daal ak xale jigéen yi jekk yi nekk ci kii bi aw xale yi ñoom ñëpp- jekkuñu de.
waaw jekk Jekkuñu de, nañ non, macha allah jekkuñu.
ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di gërëm sama bébé bi nag sëñ Fallou Mhm.
Fallou Oray maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko sant ndax bëgg dana woon dañuy ànd mënu ko xalaatuma ko maa ngi koy jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñu doon dégloo ko teewlu Eh, jërëjëf eh, soxna Oroy li mu nekkoon émission immigration yi te ñu doon waxtaan lu jëm ci wàllu tukki mi ñuy def te jaaruñu ko ci adam bi jaadu ñu doon waxtaan nag ngir seet ban solution la ñuy def ba mën a jaar ci yoon bi nga xam ne mooy adam bi jaadu ñu sant gërëm baalu ak baal ñëpp ak seen mbokk Modou Makhtar Diop Benno FM 106 point 0 wéy ànd ak programme rajo Benno FM 106 point 0
حزين جماعة